gannaaw bañ fa jógee ñu dem seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw mi kenn dootul présenté ci sénégalais yi fii ci biir réew mi ak bitim réew kenn dootu ko laam-laame ndax xam-xamam bu wér Serigne Abdoul Aziz Diaw boroom xalima gi du laal suuf macha allah nee leen macha allah Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ci xam-xam bu leer bi jàngi mboolem lu di xeetu xam-xam jàng diineem doon doomi soxna ju ñëpp ràññee fii ci biir réew mi ak sax ci bitim réew xalima ak Serigne Abdoul jaw gi la nit ñuy waxtaanee macha allah lii ñuy wax seet di li amu ci morom seetloo de yow mi lijjanti ay kayit mu të sëriñ Abdul Aziz Jaw moo ci gaaw lépp lu jëm ci kaaraange yaram bayre sangatu ubbeeku la mu saf daal ka ko macca ko xam lépp lu jëm ci ndoxu siti hémorroïde jigéen ju taxaw ñaari nit yu ñu dëddalee mbokk yi lii ñuy wax góor gu tële nag moom Sénégal ba Sénégal daj gisuma ku ko ci man te dafa natureel nag moytu leen sëriñ yi nga xam ne dañuy xooj ay doom di leen jox sëriñ Abdul Aziz Jaw mucc na ci ay garab yu baax te naturel te lépp ci suñu gàncax gii la koy composeel ah sama waa xam na ci dara de Ciss Diaw borom juróom-ñaari xomb yi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 571 87 63 wala 77 067 83 ngeen jokkoo ak Serigne Abdoul Aziz Diaw mbokk yi su ngeen bëgg dëgg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz jaw moo leen di may seen vidéo yi GCB. similaire du kenn moom rek la Walfadjri Walfadjri similaire du kenn moom rek la Walfadjri similaire du kenn moom rek la Walfadjri dëgg la 44 décibel wat la del maara tey béebalon asim barke biit ak baas tey nga jébalu ci dëgg ji haat ko maami bàyyi woon fii man di li ma doon dama fàtte woon lii man du ñoom toppandoo ma yóbbe woon ma bàyyi sama yoon fa laa jiitaloon àdduna ma xabtaloon ku may digal lu ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma woon gas def ci la ma bàyyee woon léegi maa ngi nii xaw nekk nii dafa mel ni dama weer xaw ma lii lan ku may gindi waat ma mën na ñibbi waat àdduna ma nax naf si ma buum ci baat lépp doom day dinaa déglu tey naagu fàtte yàlla buur bi ma may dinaa moytu gën a fonk sama ay mbokk 9h jot na ba teg 5 minutes fii ci seen studio Walf Fadjri 99 ku nekk fa nga nekk ñu ngi la fay fekk di la jox suñu loxoy xol di la wax asalaamaaleykum leen sant leen bu baax a baax ci seen ànd ak ñun euh, xam ngeen ko jommet euh, nee na jaleñ ci seen kaw ngeen di ko am lundi ba vendredi 9h jàpp 10h équipe bi ma jigéen Jóob ak euh, ngi nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi di déglu rajo bi jël nuyoo bi teg ko ci loxol Mamadou Makhtar Sarr nekk fële ca Touba mu tegal ma ko ci ak sax yi nekk ci biir Dakar noonu la ñuy nuyoo ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci groupe whatsapp it ñoom itamit fu liggéey bi commencé ñoom it ñu ñëw escorté wu câble di partagé li nga xam ne moom mooy waxtaan yi euh, ñi ngi ci lim ku ci mel ni waa Walfu Family TV Walfu moo ñu doy ak mboolem groupe whatsapp yi taxaw ci turu Walf Fadjri yëpp ñu ngi leen di nuyu euh, seen njiit Cheikh Ndaw alaaji Cheikh Ndaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ilimane Diop euh, sama doomi baay ak alaaji Katim Cissé jaajëfal bu baax a baax waa GCB fekk fa Baye Assane Messer ak Mohamed Silla mu nuyul ñu ña fa nekk ñëpp buñ fa jógee jaar fële ca TV Sanjogu jël nuyoo bi nag teg ko ci loxol Abdou Top série Seyda mu nuyul ma mboolem koo xam ne mi ngi ci production Sa Ndiogou aywa dellu si waat nañ tey jile comme ni ngeen ko baaxoo amee ci jommet équipe baa ngi ci euh, studio bi alaaji Sa Ndiogou Mbeng ak taalibeem alaaji maa ngi lay nuyooti ak sañse bi euh, soñ bu ñu ngi lay fay jëf euh, di am mbégte tey di am kontaan bu baax di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy déglu ak fu ñu mën a ne di dem ba Touba Mbacke di nuyu xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa waaye di nuyu bu baax sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu sëriñ Touba bi waaye di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axla di nuyu képp kuy kilifa diine ci biir réew mi lew na Medina Baye Ndiassane ak Tivaouane Layène ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Ah, di nuyu it sama taalibe bi ñu wax ma jigéen. Mhm. di ci moom mbégte. Mhm. di nuyu sénégalais yëpp yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu ak fu ñu mën a ne. voilà. salaamaaleykum maa ngi leen di man tamit di ziar képp koo xamante ne nii rek tudd nga ko fi saa njoogu sama sëriñ bu baax bi macha allah maa ngi lay wax nag j'espère que fanaan nga si jàmm yow si jàmm. di la laaj ana waa Guédiawaye a coronavirus bi di nuyu son bu Diop sama doom baay sama tonton. Hmm. di ziar képp loolu kañ la <laughs> yàgg na. képp koo xamante ne nii yaa ngi bàyyi xel jamono ji quatre-vingt-dix zéro à Dakar euh, di nuyu mboolem euh, képp koo xamante ne nii rek yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ci rawatina euh, diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu naa képp koo xamante ne nii rek yaa nga fa. Uh-huh. Mm-hmm. jaaykat soow yi di nuyu nuyoo tool leen. waa di nuyu jaaykat soow yi rawatina xaadi suñu xarit boobu. del nuyu waale dem nuyu waaleel sàmmkat yi nee nañu. sàmmkat yi ñëpp la ñu nuyu waaye sàmmkat yi duñu leen nuyu. waaw sàmmkat yi euh, ñi nga xamante si tool yi ah, borom sareet yi. sax dama leen mere la ñuy jox a ak ndawal. Hmm. saa njóogu mbeng yóbbu ko kii jawaay. waaw gaa saa moom ah saa am na ko ñu fi waaw am lu ñu dig boobaak léegi dañ koo gis. sàmmkat yow la woo jël ko yóbbul ko ñi la. am na ku ñu fi woon sax daal ni bu soobee yàlla yéen waa Jumet amel naa leen yu kii wax yu bari daal saa. ba léegi daal ba sànq ba tey gisuñu ko. <laughs> kooku de gisuma ko gisuma ma. te te et puis jigéen. Mm. lii mu ñu def. Mm-hmm. ndeke yoo loolu la Sa Ndiogou def Kouthia. xam nga Kouthia mm, euh, mm, macha allah mm, fii ak suba wala tey sénégalais dinañ gis loolu lu ñu liggéey ci ñoom ñaar diggante dem uh-huh. Kouthia ñëw na fi am na lu ñu def mm-hmm. Kouthia ndeke am na lu ko Sa Ndiogou def la ko lam defoon Kouthia loolu la ñu def Sa Ndiogou baal lu ñu la jox ci turu nit lan laa defoon Kouthia ah léegi loolu dana leer en tout cas sénégalais yi daal ci kanam <laughs> tuuti uh. nañu dem consulter TV Sa TV Sa am na lu fa nar a am <laughs> ci diggante Sa ak. Euh, ak Kouthia Kouthia waaw bu ko def dara. waaw baax euh, sooy bu man du ma def. Kouthia sama xulóowaale bi du ma def kenn. <laughs> man de ba ma man daraajee. ma daaje ko looy ree. Eh, dégg nga daal saay saay dégg sooy bu la doon <laughs> dégg nga démb la affaire bi rees leer quoi. waaw danaa dégg Kouthia daal dossier oustaz yaa ngi nii ba téye. waaw <laughs> dégg ah, batar batar batar bataramam gi laa doon laa def émission ni na ko bàyyi. na arrêté alxatam yi muy wax ak batar batar léegi nag muy def émission lu mu wax ne oustaz saay saay ba ca euh, boobu maa ngi woon ca rajo ba ndeysaan. waaw <laughs> boobu baax la nag. waaw mais loolu la nag. en koo ci sori rek. Mm-hmm. loolu laay wax alaaj Njóogu euh, alaaj saa Njóogu keroog. ma ne ko mm-hmm. nit boo ko soree doo ko xam. Mm-hmm. te tamit ñun bu ñu ñu jàppee suñu ay wax ci suñu liggéey. xam nga man man aw ma problème ak nit man fee laa amul problème li xew. gis nga saa Njóogu mii tey li ñu bokk bokk bokk bokk liggéey. mënoon naa def dara ànduma ceeg moom ma ñëw contrecarré ko du saa njoogu laa contrecarré de mm-hmm. mais jëf ji mu waaw la muy wax mm-hmm. Mm-hmm. man son yi bu nag aw maag problème nit jëf laa amal problème ñu ngi euh, jaal Sénégal ki ñu ñàkk muy Pape Diouf ci jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus Pape Diouf di doomu Sénégal di fierté pour dëkk bi wallaay ndeysaan vraiment représenté Sénégal ci ay mbir nekk France Euh, rusloowu fa nga xam ne ñooy doomu Sénégal yi au contraire siggil na fa Sénégal mm, donc nag bu ñàkkee ba kanam ñu ngi koy ñaanal mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe di dellu di wax nit ñi rek mm-hmm. ne leen mbir maa ngi nii mm-hmm. euh, li ñu gis defe naa ni leer docteur yi ñu ngi wane seen kéem kàttan yàlla dogal na Sénégal enregistré na kaawam bu njëkk waaw kaawu décès ci coronavirus donc di wax sénégalais yi ñu gën rek farlu moytu. Mhm. ci li nga xam ni moom la jëwriñ ji yor wàllu santé ak ñi mu àndal. Mhm. di wax liñ leen di digal. Mhm. ñu gën ci bàyyi xel. te bañ a bàyyeeku. feebar bi li mu bañ mooy bàyyeeku. donc lépp luñ doon def ci cet. ak moytu nañ ko yokk. te xam ni noonu lañ mën a def ngir xeex li nga xam ni mooy jàngoro ju bon ji. te xam ni xàmmewul buur ak baadoola. xàmmewul buur ak baadoola defe naa ne tey bu doon xaalis wala alal. Euh, Pape Diouf du dem. déedéet. am na ñeneen ñoo xamante ni bii ñu ngi ci feebar di wér. <laughs> donc euh, tamit bu doon mm, kii rek lañuy demande demandé defe naa ni ñoom itam mën nañoo bañ a wér. donc mbir mi xàmmewut ki xàmmewut kaa. donc mm-hmm. li ci am solo rek mooy ñu moytu. Mm-hmm. di ñaaxaat sénégalais yëpp rek. Mm-hmm. ñu gën a moytu te topp digle yi nga xam ni jëwriñ ji santé wax na ko voilà. mais alaaji foofu. Euh, mm-hmm. am na ci loolu it bëggoon naa ñu ñambaas ci bala ñoo dem. ji ñi nga xam ne dañoo gis daal ñu dëkkee di wax ni yor nañ lu koy faj yor nañ lu koy faj nga yaakaar ni jotul nag ministre bi xam nga gis nga ñun. waaw dafa am loo xam ne dama loo bëgg ñu expli expliquer la ko. Mm-hmm. gis nga avant médecine bii di ñëw. waaw suñuy maam daan nañ feebar di faju mm-hmm. te liñ daan fajee mi ngi fi. tey dama lay jox benn exemple. tey bu la jaan màttoon mm. boo demee ci tubaab bi da lay pikiir mm. waaw mais bu la jaan màttee am na ñoo xam ne boo demee ci ñoom duñ la pikiir dañ lay lugg tey lugg waaw am na ñoo xam ne sax boo duggee sëkk seen kër mm-hmm. da nga wàcc mm. waa xam nga nit ki bu nee mën na mm-hmm. te lii nekk lu jaaxal ñëpp ma eh, dégg naa koo xam ni dégg naa wax na ci kii bi ne nañ ko jox diis kaay yi gën a garaaw mm-hmm. mu faj leen buñ ko kiiwut ñu rey eh, ko. ñu tuye yooyu yëpp sax mën na cee bañ a am mais jàpp naa ni tamit essayer. baax na tamit quoi dëgg parce que bu ñu tollee fenn fi bu ñu lekk néewal ñi nga xam ni parce que am na ñu yàlla may. médecine mm-hmm. donc te am na ñoo xam ne bi wax nañ seen bopp publiquement. Mm-hmm. donc tamit nañ leen essayer parce que jàngoro ji moom ma wax la leen mm-hmm. plateau amul benn plateau médical bu ko àttan ci àddina bi. Chine yuuxu na ne wu yaay yooyu jàppale leen ma. ñu ne déet américain ngi ne leen naan jàppale leen ma mhm. parce que mi ngi sonn donc mhm. ñun nag nañ wut tamit yeneen pexe yoo xam ne moom lañ koy xeexee mhm. donc je pense que ni am nañ ñeneen ñu xam leneen lu bokkut ak la ñee xam il faut ñu essayer essayer jàpp naa ni daal man su ma doon ministre de la santé wala ma yoroon lépp lu jëm ci wàllu kii tamit dinaa bàyyi xel ñooñu nga xam ni nee nañ mën nañ dëgg-dëgg parce que mbir mi mi ngi nii rek am nga ay cas yoo xam ne bii xas nañ ba ne nii ñëwal taaj leen ñu ñu xool ba xam. bu ñu mm-hmm. mënee. Mm-hmm. alhamdulilah. <laughs> waaw bu ñu mënul nag. non bu ñu <laughs> mënul tamit du tere ngay faj. Mm-hmm. wala comprendre la. waaw dëgg la buñ ñu yaa ngi faj am nga ay docteurs yoo xam ne ñu ngi faj bu ñu mënee. dañ leen woo dëgg la ñu xool. ndax jàpp naa ne sax du ñu wax mën nañ ba pare te mooy loolu. Ah. en tout cas daal man de moom bari na ci groupe WhatsApp bi daal ku nekk naan mën naa faj mën naa faj xam naa duñ leen woo pour euh, waaye na leen woo daal bu fekkee ni daal mën nañoo faj parce que jàngar ji li muy ravagé si àddina si bari na li nit ñi di jàpp daal waaw bu leen man li ma ci jaaxal ci àddina hmm. lu ne bërët hmm. seen tuuñu ko daal mbir mi réglé fii ci biir réew mais dañuy xool di xaar waa bitim réew ba xam ne ñu toogee mel ni ñun ay figina dañ nañ jot nag Afrique tamit daal di teg ay acte Afrique daal war naa wane boppam <laughs> waaw je pense que ni daal hmm. ñoom ñu yor wàllu santé daal en tout cas daal am na ay nit ñu ne mën nañ. d'accord ñu ne mën nañ nag buñ ñu leen weddi à cent pour cent peut-être am na leneen lu leen yàlla may. Mhm. yàlla moom day maye. Mhm. wala boog wala boog xëy na foo médecin yi tax gaa yi xaw a ragal. Ah, waaw yooyu yëpp da ne yooyu yëpp da ne mais loolu. <laughs> Mhm. yooyu yëpp day am. Uh-huh. lépp loo gis. mais alaaj loolu barki démb lañ ci cofoon démb sax jotuñu cee wax mais démb ci télé bi fële damaa dégg nga wax ci wax bu ama am solo mooy médecin bi mbooleem fu mu jaaroon ñu dalal ko muy télévision wala rajo. Uh-huh. wala site internet bu ko masal defal promotion dañ laa waroon a déglu. Uh-huh. xam nga son gis nga am réew buñ ci nekkee. dafa am loo xamante gis nga tey. am na ñu bari ñoo xamante ne bii li tax ñuy dem ci fajkat bi. c'est parce que dañ ko gisoon ci télé bi. duñ dem ci moom mukk dëgg la ki nga xam ni kii nag yow dalal na la ci télé. war na am tamit ay raison yu war a tax mu dalal la ci télé. parce que bu fekkente ne bi dañ la dalal ci télé. di la présenté comme un médecin. boo xamante ni bii tamit qualifié nga ci benn domaine xam nga euh, mbiru coronavirus bi. ñun dañu bëggoon a invité kenn ci Taku Show. waaw. Euh, bi ma ci waxee Oustaz ñu coordonné ak médecin yi Oustaz jox ma benn numéro. Hmm. kooku bi ma ko wooyee dane ñoom bokkuñu ci ñi nga xam ni. ñoom ñoo am sañ-sañu wax ci jàngoro ji. te médecin la. te médecin la. d'accord mu ne ma mu jox ma beneen numéro. Hmm. mu ne ma numéro bii ngay woo ñooñu ñoom ñoo yore communication. Hmm. pour wax ci riposte bi nga xamante ni bii tey. Hmm. Covid 19 bi ñooñu ñoom ñoo yore communication bi ñooñu ñoo ci war a wax. bi ma wooyee kooku boobu ñu ngi nekkoon ñoom ci réunion. Mhm. mu ne ma fi mu toll nii dañoo nekk ci réunion. Mhm. parce que boobu affaire yi kii mu ne boo dañ nekk ci réunion mais après dinañ la revenir pour xool ba xam kan la ñuy détaché pour mu ñëw def ci communication bi. Mhm. donc mu nekk mbir moo xamante ni. tëgg nañ ko. mu nekk dafa am ñu ci war a wax. ñu ñu tànn ne ñii ñoo ci war a wax man léegi bu ma gisee waa ji. toog ci beneen plateau. di wax ci wàllu coronavirus. waaw ñu teg ci quelques jours. xam nga boobu ko gisee rek damay jàpp ni kon man kii eh, ci ñi nga xam ni moom lañ tànn la. waaw mais ñu teg ci ay fan ñu ne waaji du médecin. Mhm. ay alaaji ñi mu jot consulter seen jabar yi. mooy man donc waa te gynécologue. gynécologue ay alaaji kii ñi ay jigéen ya fa jot a dem alaaji. gynécologue ku ku fa sa jabar jaar. waaw yóbbu ko ci yoon. parce que nag non il faut. gynécologue ko de da koo jeune wu ko da koo kolo. ah non c'est extraordinaire ah du médecin faux médecin la sa jabar dem na fa <laughs> jeune wu ko de da kolo. réew mi daal en tout cas. Ah, toj na daal. faux médecin nag mooy li gën a garaaw. li gën a garaaw. parce que sax mën nañu wax ne faux douanier mën nañu wax ne boo day lijjanti xaalis day def pour kii gendarme ñu ne waaw day def lii day dóor ni kii. Ah, mais faux médecin. parce que kooku day bind ay médicament waaw di jox ay nit di bind ay kii. mais ñun bindal ay ay est-ce que faatut ay nit sax. alaaji loolu. yooyu mën na ne. yàgg na ci ah. ministère bi di liggéey. waaw. ah dëgg yàlla de. tey te te tamit nañu am rigueur ci benn affaire. nde ñim ñim bindal ay garab ci benn affaire bu ñu bàyyi rek ay animateur ak comédien di invité ay docteur te xamuñu ci lool dara naan avis de médecin daal aussi tamit euh, bu ñu invité ay médecin hmm. na ànd ak rigueur hmm. tuuti quoi am na xam ne bu ñu leen euh, invité ci hmm. plateau daal war naa ànd ak benn rigueur bi. war naa ànd benn rigueur ay ci ñu mi ngi noonu kon mbokk yi loolu lañ doon ubbee muy li nga xam ne mënta ñàkk saa yu ñu ñëwee rek dañuy wax ci actualité yi doog a romb ñu ngi nuyu nag waa euh, ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca kenkaay Walfu Kenkaayeri nekk ca marché Fass ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi déglu Walfadjri aywa ñu dem te del siwaat les si internet bi. les rumeurs du net. cay rumeurs du du net. rumeur du web. rumeur du web. rumeur du web. net. ay li ci internet bi les net. la ilaha illallah. les rumeurs du web. ay ca les rumeurs du web ni ñu koy defee le saa suñu xëyee rek am benn rumeur boo xam ne dafay daw ci internet bi ñun ñu indi ko teg ko fii jàngat ko ci anam bu mu mën a doon ndax dëgg la am du dëgg lii bokk na ci rumeur yi gën a fës ci ci internet bi ci semaine bi. asalaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi leen di wax ngeen utiliser banaana banaana dafay dindi coronavirus te escarche bi nga xam ne moom la ñuy def ñun Sénégal nañ ko bàyyi coronavirus lu sérieux la ngir yàlla ak yonent bi maa ngi leen di ñaan vidéo bi ku ko jot na ko envoyé ñëpp banaana dafa baax ci coronavirus da koy tuer da koy dindi vidéo bi ngeen di envoyé ku ko envoyé da ko booleeg vidéo bi nga xam ne moom la àndal ci suuf ngeen envoyé ko àdduna bi yëpp banaana dafay rey coronavirus ñun ñëpp nañ leen lekk banaana te ko ci àdduna bi yëpp surtout Sénégal di ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm virus bi jóge fi ci àdduna bi yëpp ba mu jeex nattu yàlla bu ñu yàlla teg la waa xam naa ne euh, euh, Sénégal ñi ngi koy escarché ñi ngi koy café ñi ngi koy rey ñi ngi koy kii mais waaye banaana day dindi coronavirus dee leen ko lekk te ngeen envoyé ko di leen ko lekk te ngeen envoyé ko nañ leen bàyyi sketch yi ak fooye kaf waaye moom de man ci li ma jàpp sama xalaat lana kenn ku nekk sa xalaat kenn njëkk ko ci kaf yooyu le ndax bu dee da nga jàpp ni euh, banaana dafay faj coronavirus waroo yem ci ay wax ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne mooy la ma def alaaji sanjoogu démb ca télé ba yóbbu ko vaar jamono bii ñu toll tollatul jamonoy waxe waxee waxee dañoo war ci loo wax lu nekk danga ko war a teg ci lu leer mm-hmm. faj coronavirus. Mm. da ngay wane luy tax ni bañaana day faj coronavirus. en tout cas fan yëpp ñu ngi koy wax de. <laughs> waaye nag est-ce que dina ko faj carrément loolu tamit. Ah, non man weddi ko mais nga wane ko rek. Mhm, mm. ah, yow mii weddi woo ko. ni lii moo am na mais na ko wane rek na wane ni banaana day faj coronavirus rek. barki dem néew fii nañ ma jëndal banaan. yaa saa mais man avant corona dama doon lekk banaana <laughs> ah. jigéen yow da ngay mandi wala. yéen bàyyi bu leen tax ma wax li ngeen. mais waxal waxal. ah ça <laughs> euh, xam nga ma jigéen. Ah, dëgg yàlla. day jaxase ñaar yu bokkul. dëgg dëgg. xam nga bi ñu jëndee banaana. waaw. c'est parce que mburu mi la ñu wóoloo tut waaw ñu ne banaana boo ko jëndee mën nga ko xolli nga lekk pour sa sécurité dëgg yàlla loolu moo taxoon hmm? ñu dem jëndi ju jënd ñu jën jënd ñu banaana c'est parce que dañ ne day faj nàngam parce que feebaraguñ bay faju xam nga loolu mooy problème Sénégal <laughs> ñi feebar ñoom ñoo war a faju mais fi mu toll nii ñi feebarut ñoo bëgg a faj jigéen day mandi wala euh, pour yeggale ndaw si nee na hmm. man tey su ma doon jaay marchandise mu lamb dinaa audio hmm. daal ne lii day faj corona <laughs> dëgg la parce que boo koy wax léegi léegi mu jeex. maa la ko wax. loo waaye yor di ko jaay mu lamb boo audio léegi. ne mhm. lii dafa baax ci coronavirus. Mhm. léegi tey nga gis loolu ne pëñ daa jeex. Mhm. Mm. donc nag ndaw si nag moom li mu wax ne sketch yeeg yooyu yooyu buñ ko fi jëlee rek catastrophe parce que réew mi yëpp waruñoo ànd tiit. te sketch yi muy wax yëpp ñu ci def. li ci nit ñi di def yëpp ay sensibilisation day nekk ci biir dañ ciy sensibiliser nit ñi. pour wax leen ne leen dee leen moytu léegi c'est que il faut que tamit ñu mën a lire. li ñuy seetaan lan la. parce que maa ngi gis ay yu ñuy comédie. mais comédie bi ñuy comédie à fois am na message boo xam ne. mi ngi ci biir mhm. li ñuy comédie. donc tamit euh, yow bu gis ree ji kese boo gisee ree ji kese mooy wane ni sax xam-xam bu gàtt nga yor. Mhm. mais ci biir ree ji à chaque fois laxas nañ ci loo xam ni. Mhm. buñ la ko joxee. Euh, di nga gis ni lii kat war ngaa moytu war ngaa mën a def nii war ngaa mën a aar sa bopp ci lii war ngaa mën a aar sa bopp parce que da la plupart ñoo xamante ne bi kii day aaru kee du aaru. kii di aaru nag di xamal ki aaru nii ak nii kële moom il s'en fout ci li nga xam ne mooy mbir mi. yooyu mooy def parfois reetaan nit ñi wala nit ñi ñëw jël ki jàngoro ji soo fantal ko def ki yu bari ñi ngi ko ci def quoi. Mhm. donc tamit bu mu wax ne kii te ree jooju tamit. réew mi waruñoo toog ñun ñëpp ne këcc rek. voilà vu que léegi vingt heures la ñuy. tëju léegi ku ku wekkee mën nga mën ah, nga seetaan vidéo yi boo ko seetaanee euh, soo xoolee bu baax di nga gis leen loo xam ne daf la ci attiré. le euh, fait nag mu ne banaana da koy faj. man moom la ko wane rek. Euh, loolu daal man defe na na ci indi preuve. parce que moom fan la ko teg. moom dafa am daf koo daf cee faj nit. wala daf cee gis kuñ ci faj. wala dafa am ku ci faju ñëw ne ko faju naa ci. yooyu yëpp <laughs> daal ay question la yoo xam war nañ joxe rek ma jigéen suñu banaana bi ba bàyyi parce que fii yow ma jigéen boo fàttalikoo bi affaire bi commencé sérieux ba léegi. Mm. wala biñ ko tuddee ba léegi. Mm. Euh, mburu mi jëndatuñ ko ah, man defe naa man sama soxna mi ngi may dégg parce que benn waxtu laay lekk léegi muy su ma jógee fii ci rajo bi hmm. su ma demee su ma xësee lekk sama añ hmm. du ma mën a reeraat parce que day guddi fii gëj nañ fee ndékki banaana nag buñ ko jëndee mooy xëy na sécurité la non keroog dama gis eh. bu ñëw rek daan ne eh dama jënd a ba mais banaana sécurité laa ah. parce que dama ne dinaa lekk dara mais duma lekk mburu yi parce que tamit dama ne dalul ah, sama xel ma ne banaana eh, banaana avant corona dañ ko doon lekk ma jigéen ayca <coughs> alaaji wala poire <laughs> alaaji de eh, sàmmkat yi woo nañ ñu de. Mm. Mm. alaaji sàmmkat yi woo nañ ñu. Mm. alaaji couvre-feu daal ndeke. Eh, du commerçant yeeg ñiy jënd ak a jaay kii rek ñoo ci loru de. démb daal démb daal suñu mbokki sàmmkat yi daal woo nañ ma. waaw woo ma de. Eh, dafa am suñu mbokk yoo xamante ni ñu ay sàmmkat la ñuy ay xar la ñuy yor ak nag léegi dangay jël sa kar yóbbu euh, daara jolof wala bay xaaw wala si marché yi daal wala si biir dëkk daal comme ni kombal dara nga ñëw fii pour nga wut koo xamante ni bëgg naa jënd xar nga jaay ko soo dajee soo dajee gaa yi dañ lay jàpp di nang sa kar ñu yóbbu ko birgaal waaw ngay ñëw bala ngay jotal sa kari bi dangay fayaat trois mille. xar bi fan lañ koy jàppee bu ñu ko jàppee. Daar Jolof Daar Jolof. léegi lu tax ñu koy jàpp wala ci marché luuma bi lañ koy jàppee. waaw diñ ko jàpp si mbedd rek fu ñu dajeeg yow rek dañ lay jàpp. ah foo yoree xar rek dañ koy jàpp. waaw ko même kumbi la defal nañ ko ne fan yii. te boo fayee trois mille ñu joxaat la xar bi. waaw d' accord léegi bu dee xar yu bari lañ jàppee bu ci ne da ngay joxe trois mille. waaw metti na moom. métti na léegi ñoom dañuy laajte ndax léegi dañ nanga sa euh, sa pièce diñ ko nang waaw léegi ñoom dañuy laajte ndax ñoom ci Sénégal la ñu bokk wala ñoom dañuy ma xanaa xanaa nit moom su fekkee ne amoo loo lekk hmm. xar nga yor wala bii nga yor wala biti ngay yor il faut ngay joy li ngay li nga yor loolu ngay jaay wala ngay dem sax ci wala looy def li nga yor ci ngay jaay kon kay wa kon kay xanaa président bi moom wax waxu ku ku ñuy fekk hmm. la may wax nii jëf problème bi kañ la commencé. signé bu baaxee dëgg mars amul. ah bi ba léegi loolu la loolu moo xew. biñ commencé couvre feu bi daal bi Macky Sall waxee ndogal yi ba léegi. waaw d' accord kon yéen ñi nga xam ne yéen yor jur yi ci àll yi di sàmm lu ngeen di ñaan président. Hmm. Hmm. nañu bàyyi jàpp bi rek nañu bàyyi jàpp rek ko ko ñu daje nañ la bàyyi rek nga dem jaay loo am si nga yóbba nga jënd ceeb ak li nga mën a lekk nga yóbba sa njaboot. Hmm. waaw loolu lañ ñaan daal te xam na ne feebar bi moom ñun ñëpp ñoo koy daw waaw kon nit mooy il faut nga am loo lekk wala mu jox la nga lekk wala ñoom soo fekkee ne dañ diñ tere di jaay si démarché di jaay wala si téere wiil eh, yi di jaay lañ hmm. lay jox ceeb ak diwlin nga lekk nga toog jax hmm. sa njàmbur hmm. waaw limal dëkk yi am waaw Koungheul Koungheul waaw daar Jolof Mbay Xaaw Mhm. dëkk yi nekk ci àll bi yëpp lool lool moo am foofu yéen ñi nga xam daal yéen yor jur yi te di fexe di ko jaay pour dundal seen njaboot daal dañ leen di jàpp suñ leen jàppee bu ngeen fayee ñu joxaat leen waaw incha allah jërëjëf si waay jërëjëf waay jërëjëf chaque jour dem lay dégloo yow ak sa njóog ak ma jigéen

ni ay mbooloo dañ fay daje parce que kuy jaay moom yore sa marchandise ku nekk day ñëw ngir bëgg a jënd peut mën na mën na nekk si condition yooyu lañ leen di fekkee mais tamit est-ce que réellement ñu yokkaange gi ñoom ñooy leen di jàpp seen i ay euh, seen xar yi. Mhm. di ko di di leen di leen fayee ko ay ay ay ay trois mille francs parce que ñoom nekkul du loolu mooy seen liggéey. fu ñu leen fekk durant ci feebar bi nii dañ leen di wax nañ leen tasaaroo mais mënuloo wax nit ki toogal ba pare doo ko jox lu mu lekk doo ko jox lu mu naan mi ngi koy wax tout à su fekkee ni nii. mu ko waxee noonu la amee man jàpp naa ni ay saay-saay ñoo rax ci biir. di jéem a ñoom tamit. non déggoo ma ni lañ leen di yóbbu. dañ ah. leen di yóbbu ca ah, bi. ci ah, man rafetlu ma ko dëgg yàlla di fayee benn xar bu nekk 3000 francs bu fekkee moom yoru ko wala jaayu jaayagul loo xamante ne nii mën na ko yóbbu ca kër ga pour pour dimbali gi tamit nga bëgg a suturé ci moom ay ay ay xaalis dafay daal di metti donc nañ leen nañ leen wax rek ne nañ toog comme que tas nañu marché yi ñoom tamit nañ toog ku si mën a génn nag am sa benn xar boo xam ne da nga koy yóbbu pour jaay ko pour dépense mhm. balaa vingt a jot nga la boo ko jaayee nga ndugg li ngay dugg nga yóbbu ca kër ga pour njaboot gi njaboot gi. ah metti na xeeñ daal yàlla bu mu am. ki ñu teg euh, ay daan. dafa war a fekk mu def lu jul yoon. waaw walla déet. Mhm. léegi man damay laaj euh, ban jalgati la kii def ndax dañu wax ne bu leen jaay ci marché bi ñu dem dajaloo ca marché. Mhm. wala ndax dafa jaay ba guddi. Mhm. tombeek heure couvre-feu bi. muy ñibbi. ñu jàpp ko ci yoon wi fan la ci problème bi de quoi man tamit li mu wax ni ndax nit ku yor xaram nii rek di dem mm-hmm. du couvre-feu mm-hmm. du dara yow yaa ngi dem sa yoon mm-hmm. loolu est que war nañ ci mën a jàpp nit ne ko indil nàngam ah, c'est que ndax dañ koo fekk ci yoo xam ni dañ koo tere ñu ne marché luuma bu mu amati ñoom ñu créer ay luuma ñu fekk leen fa jàpp leen ndax noonu la demee way ndax da génn ci heure boo xam ne dañuy wax ni bu fi kenn génnati jooyu leerut quoi ci man. même même bu fekkee ni sax dañ leen jàpp waruñu leen fayeeku même bu defee lu dul yoon moom nee na nee na dañ leen laaj 3000 francs ci xar bu nekk. boo ko jàppee balaa may wax fayeekoo war na fayeekoo warut a fayeeku dama bëgg a xam ci yii. Hmm. ban la ci. ah moom de nee dañ tas marché yi dañuy dem. parce lépp loo gis. Hmm. ànd na ay daan hmm. léegi yow lan nga bëgg a xam ci waa ji. waa ji li ma bëgg a xam ci moom. Uh-huh. mooy moom dañ ko dañ ko jàpp. Hmm. ndax dañ ko jàpp ci marché luuma lañ ko jàppe wa ilaa dañ ko jàpp guddi. fekk tamit il faut mu leer. pour nga mën a xam yëf yi nan la demee. waaw. yaa ngi dégg alaaji yaa ngi dégg alaaji Sanjoogu li mu laaj. Eh, eh, ci yan jamono lañ lay jàpp ndax jamonoy guddi la ndax ci luuma bi leen aay la wala yan yan jamono lañ lay jàpp. déedéet ci bëccëg la xam nga tey la tey la aral. Hmm. da fay rajo bi bul déglu euh, rajo bi wàññi rajo bi waxal mu waaw ma ah. la alarba. waaw tey waaw. waaw léegi da nga jël comme Zakar rek benn kar rek nga jëm marché nga xool ba xam dal lal moo nekk foofu. Hmm. marché ngay dem. nga ñëw. ci marché bi. doo ndajee rek dañ lay jàpp di xam ne yow da jaay rek dañ lay jàpp comme marché daal marché léegi leer na. ok léegi leer na jërëjëf sooy bu. jërëjëf kon euh, continuer déglu ñu. waaw alaaj marché lañ tere. marché lañ tere donc bu fekkente ne bi da nga faa dem. <laughs> bu waa jalgati nga. d'accord parce que dañu tere marché luuma yi. moo tax nit ñi toog seen kër xam nga ñoom bu fekkee ne bi dañ ko def nag ba noppi nag yow nga dem fa. Mm. la ñuy bañ. Mm. yaa nga ca. d'accord yaa ngi dégg. la ñuy bañ yaa nga ca. kon donc loolu mooy li nga xamante ne bii mooy mbir mi. waaw parce que nag léegi nag leneen li nag mooy lan. ginnaaw bu ñu tegee ay tere ba noppi. Mm. te ñii nekk ay borom kër. Mm-hmm. loolu beneen domaine la bu bokk teg li nga xam parce que tamit tere. dafa war a am lu mu àndal. Mm-hmm. parce que mënoo tere nit ki nit ki lii la yaakaar pour dund. Mm-hmm. nga tere ko ko ba pare. te joxoo ko lenn loo xamante ni bi mën na cee sukkandiku ngir toog muñ parce que kii li mu expliqué mooy dafa bëgg a jaay ji pour am lu mu dundee c'est vrai donc nag gouvernement bi nag li mu war a bàyyi xel mooy ndimbal gi muy wax na ko yëkkati jox ko ñi nga xamante ni bi nag yelloo nañ ko dundee mi bëgg a yàgg de parce que tamit mënoo wax ne damay dimbali nit ki mm-hmm. Mm-hmm. non seulement ne ko bul liggéeyati. Mhm. waa ji liggéeyatul. Mhm. am na njaboot gu koy xaar ci kër ga la ko waroon da koo war ba tey. Mhm. la ko war da koo war ba tey dara wàccu ko ci. dafa war di joxe dépense. dundal njabootam ñu feebar mu faj leen loolu yëpp amut lenn lu ko ci teggeeku. léegi nag te lim ko daan defee mooy li mu daan jaay. li mu daan jaay moom la ko daan defee. léegi yow tere nga ko ne ko dootoo jaay. waaw parce que da ngay def léegi mais na ànd ak nag ay mesures d'accompagnement mm-hmm. na nga am loo xam ni da nga koy yëkkati teg ko ci loxo yi ñooñu mm-hmm. ngir ñu mën a wéyee sarti parce que lu ko mooy jalgati dina am. Mm-hmm. parce que loolu moo indi kii jël xaram dem ca marché ba. parce que dafa jaaxle. nga jàpp ko ba pare. voilà donc nag loolu moom mooy li nga xamante ne bii. mbir mi daal wax dëgg fa yàlla président de la république daal lay wax ne la bu fekkente ni danga tere lii hmm. dafa am lu muy àndal Macron ba mu ko teree ca France hmm. am na lu mu àndal kon yow boo ko teree na am lu mu àndal waaye mënoo ko tere ba noppi hmm. àndut ak dara nit ñi bu ñu jaaxle waxuma la kenn waaye ñu bari dana génn nag comme nit ñaa ngi ñaa ngi participer daal alaaji mooy lañ doon wax démb rek moom daal quinze noirs yeeg mm. waaw yëpp dañ a yëpp dañ ko war a génne te xam ni sénégalais yi soxla nañ nag wax dëgg yàlla waaw euh, kon alaaji wax na ko la ma ko kii di woote rek mu bàyyi ba moins dix incha allah ñu ngi jégalu bu baax a baax mu bàyyi ba moins dix ñu daal di ñu daal di ñu daal di ñu daal di dugg ci loolu nga xam ne mooy mbirum woote meeg dafa yëf ay ca kon sàmmkat yeeg ñiy jaay ak ñiy jënd ñëpp daal yàlla na euh, lépp yolam incha allah te gouvernement bi moom tamit jël ci ay matuwaayam mm-hmm. alaaji mhm. alaaji day euh, alaaji étudiants yi bëgg naa ñu yokk seen rajo hmm. alaaji étudiants yi bëgg naa ñu yokk seen rajo ba mu sës waaw ak jàngkat yeeg ñi nga xam ne dañoo nekk ci li nga xam ne mooy mbiru wut xam-xam te yàlla joxagu la yenn doole yi wala yenn moyens yi pour nga jàngi hmm. alaaji man tiit naa ci sama réew rawatina ci sama ay ndawi réew ah alaaji kii de li ma expliqué hmm. lu metti la waaye nag nañ ko déglu te dellusiwaat. asalaamaaleykum wa équipe Joomet di nuyu sëñ Soy bu di nuyu aussi laaj saa Ndiogou ak taalibeem boobu ma jigéen Diop am na yoon boo xamante ne yoon bu gaaw la pour gars yi xëcc ci ndaw yi rawatina nag sama mbokk étudiants yi li may wax nii mbir la bu ma dal ci benn waa joo xamante ne Facebook la jëlee sama numéro jamono jooju nak fekk masqué wu ma sama sama numéro euh, sama numéro Facebook donte xamoon naa ko mais maa càgg sàgg noonu rek ba ko noonu ma ne ah garaawul sama xëy na dinañ diir soxla sama numéro wala jëlee sama numéro ma ko yow Facebook mu ne ma waa am naa compte Facebook ma ne ko sa compte Facebook lan la mu ne ma noo man kilifa laa mais damay suivre rek damay suivre compte Facebook koo xamante ne bëgg naa xamante moom waaw ma xool nu may def soit ma bind la message soit ma bu ma gisee sa numéro ma woo la mu ne ma yow nag da nga bokk ci ñoo xam ne dama leen woo ma ne ko ah loolu de dëgg la mu ne ma yow eh, dama la naw ndax bu ma xoolee ci sa Facebook profil bind nga fa ne yow góor guy toroxal jigéen daal moom ngay ku bëgg jigéen nga boo ci tombé woon tey jii ci sa wax jooju nag daf ma touché bokk na ci li tax ma gën la nawloo ma ne ko ah, de man de dama ji ne daal jigéen daal amul doole amul kàttan ga a tax góor yëkkati loxoom di ko ko dóor waa ji mu ne ma yow de yaa daara ju ji ma ko maa ngi daara ma fa nga fa ma nekk ci daara ju mag ji ma ne ko loolu nga de foofu moom ay kaa ma fay dugg de ñu ñu ay concours wala da ngeen def nan dañ leen sélection da ngeen dugg fa ma man daal ma wax ko fi ma jaar ak moom ci saa si mu ne man booy dem jàngi nan ngay jël ma ne ko man ma jël Ndiaga Ndiaye deux cent ndax péage la ñuy jaar mu daal man daal maa toog tuuti rek jot message wari fekk mu envoyé cinq cinq mille autant pour moi ma wax ko sama benn xarit ma wax ko ko bi ma ko ko waxee mu ne ma ah ku baax la waaye nag booy teey ci ana sa recherche yi nga doon def ci àll affaire franc-maçonnerie affaire nouvel ordre mondial affaire sionisme yi ngay wax mbir yu bëri ci affaire yu affaire complot ay théorie du complot yooyu yëpp yow yaa ma koy expliquer léegi yow tey nit ki ñëw nii nii nii rek nga nar ko nangul xamoo lu mu lu mu ma ñu waxtaan waxtaan tuuti mu ne ma bon man nag au moins dinaa la wax tuuti ci man mu ne ma man moom ku am baat laa ku am baat laa ci fi ma ne maa ngi dëkkee Almadi waaye am naa kër Thiès waaye këru nopp noppalukaay la kër googu moom noppalukaay kese ko tax a jóg ma ne ko aha mu ne ma waaw mu ne ma am naa soxna am naa ñetti doom mu ne ma nag man bëgg naa la jàppale ci sa àddina ci loo bëgg rek ci wàllu xaalis et tout bëgg naa la jàppale wàllu xaalis moom entre man ak du ma leen nëbb cinquante cinq mille la ma njëkk ma ñaan ko dix mille may ma mille yooyu mayaatoon na ma fi xaalis waaye fekk après ma jógee village bi ma jógee village nag mayaatoon na ma fi xaalis daan jékki-jékki nii rek ma jékki wari a mu ba bés mu ne ma nag tey dama bëgg ñu waxtaan ma ne ko waxtaan bi lan la ma dama bëgg mu ma mu ne ma la ma ne ko waaw mu ne ma sama soxna euh, luy neex ci jigéen mi ngi moom mu ne ma te sama soxna it ku am doole la ku am baat la ah kon mbokk yéen moom da ngeen am barke rek macha allah wàll ma ci waay ndax njàngum université bi metti na mu ne ma waaye man nag bisexe la ma ne ko luy loolu mu ne ma maanaam sama soxna am nañ doom maa ngi seeg moom mais man du ma yëg ne du ma yëg bànneex tant man sama moroomu góor sëyul ak man ma ne ko subhaanallah sëñ bi looy wax nii boobu ba tey maa ngi lay yónnee maa lay jàppale say problème sama problème laa la wax ni ma gisee ak ni nga teeyee di nga ma dëglu di nga ma gindi te di nga ma jàppale waaye man dama am cofeel ci yow cofeel bi mooy lenn lu dul yow nga ñëw seeg man loolu nag Cees lay dem lay lay amee boobaa cent mille heure boo bëggee ma dolli ko sax ma dolli ko mu ne ma Sénégal fii bëri na fi ay jigéen yu fi ne ñoo xamante ne macha allah tey jii ku ma la ci jëlaloon yóbbul la ko iri leen yóbbu leen jees googu nga fekk leen maanaam du la xañ sa dara bu la neexee pare nga dem ak ñoom xale jigéen yooyu séy ak ñoom man aw du ma am problème boobu waaye man saa yu ma la soxlaa da ngay ñëw nga séy ak man ma ne ko maanaam yow daal góor jigéen nga quoi mu ne ma non du ma góor jigéen baat boobu sax man bëgguma ko man du ma góor jigéen du ma dox di lamsal du ma sol seen solo du kii mais il faut que daal góor séy man may soog

soxna am naa sama doom tout récemment yàlla def na musuma gisanteeku waa ji yàlla gindi na ma sama bopp bi ba ma xam ne kii de bu ma ko toppoon xëy na mënoon na ma yóbbu ci safaan lii nag dama doon mës di rêver fan laa koy waxee mais bi ma amee seen numéro ngeen ji dugal façon yi laa ne man moom lii moom foo jaar dinaa ci participer wax leen ko avec même l'appui de d'une sama sama sama mag bu jigéen ba ma ma ne ko sama histoire ba mu ne ma waaw wax nga dëgg jàllale ko fi ndax nga yeewaale ay ndaw ndax nga yeewaale ay ndaw di histoire bu doy waar bu dox ci euh, benn ndaw bu nekk fii ci biir réew mi euh, juste nag après publicité bii la développement bi di am. Mariga Voyage muy ànd ak bokk ci xeex bi ñuy xeex coronavirus di ñaan ay clients am ñuy respecter mesures d'hygiène yi ak itam di leen ñaax ñu toog seeni kër ni ko nguuru Sénégal digle. Mariga voyage jagleen na leen service minimum foofu ci avenue Malick Sy dend ak Sonatel bu Médina ngir seen i laaj ak tontu bu soobee yàlla lépp dina jar ci yoon ba tey mën ngeen ñu woo ci 33 842 33 93 wala ci 77 556 82 34 wala rek nga woote ci 77 656 28 09 ci yar ak jëfe tegtal yeeg digle yi mën nañu daan coronavirus. ayca ma ngoog euh, defe naa yéen yéen a bokk déglu li nga xam ni maas moom la ñu déglu Alaaji Sanjoogu moom la ñu déglu kon mu mel ni daal am na fiir gu yi di teg euh, ñi ñu koy tegal nag man li ma ci metti bu doon ni ak li ñu mën a def lépp dinañu dimbali Sénégalais yi ci waxtu wi nga xam ne ci lañ koy soxlaa sax nga ni waaw mhm. mais dañuy dem fekk ci roq boo xam ne fa la ñu sonn ñu nekk mm-hmm. fa la ñuy eh, soxla ndimbal nekk au lieu ñu dimbali leen te yàlla tax mm-hmm. ak luy xew doog a xew mm-hmm. mais dañ lay tegal soo ma defalee lii ma defal la mais avant loolu nag dafa am yaa ngi fàttaliku bi ñu doo commencé émission Sanjogu doon na utiliser baatu mepp mais googu nag pour ñu defal la ko dañuy ñëw xool sa euh, li ma sama benn xarit di wax mhm. nee na ba ci jigéen yi nga xam dañ leen di saay-saay na nga xool mhm. ba ci ku nekk ci néegu sëy bu ñu la détourné mhm. li ñuy njëkk a xool dañuy xool yan faiblesse la sa jëkkër am ca la jaare pour détourner la mais ndaw yi ñuy détourné dañuy xool lan mooy seen jaare gis nga waa ji kii ak moom ci yan anam ngay jàngee mi ngi commencé di poser ay question kon jar na ndaw ñi te xàmme. Mhm. te son euh, yi bu lu ñuy wax rek gis nga Facebook. Mhm. dafa nekk réseau boo xamante nii dafa day dafa doy waa ku nekk moo fay daje doo xam yow euh, ku nekk naka lay ñëwee parce que parfois da ngay gis ay nit di la envoyé message di la message di la message ba yow après danga naan ñii nii est-ce que seen message yi nii mhm. lan moo si tegu luy waa ji wax rek gis nga euh, étudiant dafay sonn Mhm. parce que lu tax ñuy cible étudiants yi parce que xam nañ jàng bi dafa metti yàlla booy dëkk si région yi di xëy di ñëw Dakar mi ngi noonu demeewul noonu mhm. parents yi tamit ñu am tolluñu foo xamante ne nii war nañ say besoin yëpp ñu la ci jàppale mhm. donc ci foofu la ñuy jaaree pour di mën a koñe ñenn ñi déggoo lu mu wax nee na commencement bi dañ doon waxtaan di kii noonu la lay kii di lëkk ci di lëkk ci bëgg ba nga ba nga jege si nag. Mhm. mu commencé di la xoy ak lan xaalis parce que xal euh, jeunes yi léegi dañu bëgg xaalis nañ ko wax te dee. Mhm. ñoom xaalis daf leen jaral lu nekk mais heureusement ba am na ay exception yoo xamante ah, ni. ah soxla bari nag maas. soxla yee bari mais tamit warul tax nga. bu euh, fa nga daan toll di xam-xam. Mhm. da nga ci daan yem mais léegi nag fi ngay toll di mhm. xam-xam da nga boole. loo xam ne mhm. day soxla crédit. day soxla puce day soxla page. donc ah. heureusement ba ba mu ko xëccee ci moom commencé di ko envoyé xaalis di ko wax nangam ak nangam donc euh, day mel ni ju leneen parce que waa ji nii am na boom baat la yor na jabar mais am na leneen loo xamante ne beneen besoin boo xam ne moom ko ko may jabaram munu ko ko may feebar la feebar la donc euh, maa ngi wax grand bi euh, ni mu ko expliqué bu fekkee noonu la demee am na courage yu ba mu ko waxee loolu carrément mu retiré wu parce que yaruñu ko ci loolu amaana euh, donc lu mat a bàyyi xel la tamit étudiants yi tamit ñu ñu xoolaat seen taxawaay daal di seetlu bu baax a baax ñi ñuy waxal góor jigéen ak képp koo xamante ne nii si wàllum lobby yi nga bokk nii lañ lay def pour xëcc la donc kuy ñëw pour lii rek rek jàppal ni mooy loolu. Euh, ñuy jaajëfal. ñuy wax ni. ñiy rëbb mënuñoo jóg di rëbb. il ñu koy continuer di def parce que nit ki am na jabar amay doom. terewut mbonam googu mi ngi ci mi ngi wër. waaw kooku jóguñu pour yedd ko. Mhm. ki nga xam ni moo envoyé kii bi tamit histoire bi. moom it dal na xelu ñëpp ñi ko déglu. Mhm. dëgg parce que wane na ci mat gu mat sëkk. Mhm. donc nag li may def mooy di gërëm ki ko ci xelal sëram beeg yooyu pour mu partager ak sénégalais yi histoire bi. Mhm. parce que loolu am solo la pour ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci. Hmm. ñu yëg ni am nañ seeni moroom yoo xam ni. Hmm. Hmm. proposé ne woon nañ leen lu mel ni mais ñu garder seen dignité. loolu mooy li ëpp solo ci mbir mi. bu ko defee ñoom it ñi nga xam ni ña nga ca ñu jéem a bàyyi ca jéem a roy ci kii mhm. ku ci duggutoon jéem a jaar ci yoon wi képp kuñ ci jéem a mhm. xëcc ci yoon wale mhm. nga xool yoon wi nga xam ni moom la waaj loolu mooy message bi nga xamante ni bii rek moom moo ci ne parce que ki envoyé mbir mi vraiment wane na ni nit ku ñu yar la te it euh, ku bëgg lu baax la donc topput facilité quoi. te am na ku may envoyé message léegi nii liñ ko wax di ma wax ni ma dund na même li waa ji wax. voilà mm. donc euh, attention de. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. buñ jàpp ni booy yu bari ñu ngi leen di nax de déedéet. loolu mooy di gën a tuuti. ci ñi ñuy nax. Sénégal nit ñu baax fi xam nga c'est que. parfois mbon moom la ñuy fésal. moo tax il faut que yu baax yi. nit ñu mel ni ñuy fésal lu mel nii. pour ñenn ñi nga xamante bi jàpp nañ ni ñëpp a koy def. ba mel ni mbir mi dañ koy bëgg a démystifier xam nga tey bu ñuy jël benn affaire naan woy xale yëpp nii lañ def xale yi nii lañ def xale day ba am na booy boo xam ne mi ngi toog daa ah non sama morom yëpp def non hmm. il faut ñu wan leen ne leen am na xale yu bari yoo xam ne defuñu lii hmm. Hmm. te loolu lii exemple la ci ngir xale yi nga xamante ne bi ñu ngi doon wax naan xale non sama moroom yëpp noonu la ñuy def ñu xam ni déedéet am na seen i yoo xam ne defuñu noonu. Mm-hmm. donc nag ñi ngi koy gërëm bu baax. di gërëm it tamit sërëm boobu. Mm-hmm. voilà xarit bi te waa ji proposé na ko nee na ko carrément soo bëggee am na jigéen yoo xamante nii dinaa leen indi. pour li nga bëgg yow yëpp ah, nga parce que waa ji boobu bëgg na koo téere rek voilà c'est ça xam nga moom moom ko man du ma góor jigéen mm-hmm. du ma lamba du ma laccax laccax yi du ma sol yëre jigéen waaye nag soo ñëwee yow mën naa laa utal jigéen iril la yóbbul la mais saa yu ma la soxla dama mm. euh, utiliser comme nu mu ko bëggee. Oh. donc euh, am na ngor am na ñenn ñoo xamante ne nii vraiment suñ leen proposé woon loolu. Oh. dañ ciy dem mais heureusement que moom jot na am xelu conscient que nii dafay am doom ëllëg moo ngi nii tey wax na ko nee na yoon naa sama doom yoon naa sama jabar dignité teem ak honneur am rek moo ko. te alaaji alaaji foofu gis nga mm-hmm. foofu maa ngi wax. Mm-hmm. bépp soxna boo xam ni sa sa jëkkër daf lay proposé yooyu. Mm. boo digloo jommet bi na nga jàpp ne sa jëkkër ci ñooñu la bokk. Ah. waaw. ah yow l'islam dalaa autorisé nee na la fii bàyyil. Mm. fii bul laal. Mm. seen tool lañu fu leen neex jaare leen waaye fii bàyyil. Mm. yow nga proposé sa soxna di àndeek moom foofu. wax dëgg yàlla sa soxna si nag bu dee ko yeewu la war naa xam ne sama jëkkër jii maa ngi koy defi feneen. loolu moom euh, amul sax ma dem te ñëw parce que yàlla dalaa waa wax na ko am naa soxna am na lépp loo xam ne moom la jigéen di am. waaye nag man lii moom ci góor laa koy amee kon nag euh, loolu moom maa ngi koy wax bépp jigéen te am na ci jigéen yoo xam ne ñu ngi koy dund mais dañ koy def ndax alal jaa nga fa wala ndax bëgguma sëy bi rëcc ma wala ndax mm. gis nañ ci ay mbir yu baree bari yoo xam ni euh, am na sax benn vidéo buñ ci gis soxna si xaw ma ndax la muy wax dëgg la am du nee na ba loola xewee ba mu demee ci yaay ji wax ko ko yaay ji nee na ko toogal ndax gis nga li waa ji def ci kër gi mm. waajee changé suñ situation gis nga ci kër gi ñu fekkoon gis nga fi mu ñu indiwaat toogal d'accord loolu nag wax dëgg yàlla wopp la de. dem ba jigéen wax dëgg yàlla bàyyi ko fa di dem ci kii ëmma gay loolu de wopp la de. <laughs> ah wopp la di amul yaa yéen a ko yéen du ngeen bañ dara yéen na alal ji eh, teew rek non non na alal ji na fi ji nekk rek. du ñëpp gis nga góor lu mu baax baax baax baax. lu mu baax baax baax baax. Mm. am na ci yooyu jigéen ñi mënuñu ko muñal. Mm. waaye gis nga euh, waaye gis nga góor lu mu doy waar doy waar te am alal ji léegi. Mm. jigéen ñi dañ koy dañ koy muñal lenn ci jigéen ñi waxuma ñëpp lenn ci jigéen ñi. dëgg yàlla euh, euh, Samba Kandji nee na mi ngi déglu émission bi Samba maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom mi ngi mi ngi déglu émission bi waa ji naan ah, dund na même chose ci euh, Facebook bi numéro Jomet baa ngi noonu rek après ñu ñu déggante incha allah. Mm-hmm. di nuyu laa Lyon sama benn jigéen moom it ma nga fële ca jàmm gën moom itam di ñu bàyyi xel. ay ca kon dafa mel ne agsi ci waxtu wi nga xam ne mën nañoo ubbi ligne bi balaa mm-hmm. gars yi di ma kii 88 ngeen taftal ci 111 yéen ku baax maaleykum salaam wa ku baax ki maa leen di ziar waay. ñu ngi delloo ziar jara waaw ta lam da Thiès. Euh, ñoo lay ziar waay. ziar nañu bu askan bi yëpp ñoo leen di ziar ci seen liggéey gu rafet bu nga xamante ne yéen ciy jàppale askan bi. incha euh, le temps dama koy faral di wax nekk yéen dañ leen di war di déglu parce que da ngeen di yee nit mm-hmm. te dañaa toll si nga xamante ne jamono ji nga xamante ne mooy jamono yeete la. Mm-hmm. waaye nag am nañu lëmbee réew mi lu nga xamante ne benn ennemi fu mu toll ni moo dugg biir Sénégal ku su nekk nag war nga xaa mën a jël def ko sa combat muy coronet mhm. kon tey jii liggéey bu suy nit mën ta def rek mhm. surtout yéen ñu nga xamante ne yéen ngi def communication bu doy waar kon askan baa nga leen di sant mhm. man de lu may ñaan mooy que ne ku si nekk rek na nga jël yëpp bi def ko sa yëfu bopp président joxe na ay décret président nee na nii président nangam nangam non waa code bi nee nañ aussi nekk nanga nga sa kër jàpp que ne loo loo ci def suñu baax loo ci def suñu mooy sa bopp nga ko defal. di kilifa gu mag nga xamante ne génn na ci réew mi. muy koo xamante ne tey jii si monde sport bi amul lu mu ci deful. Mm-hmm. lii rek firnde la si ñun parce que tey jii amul lenn loo xamante ne tey jii war ñoo mën a tiital sa war ñoo mën a jaaxal ci feebar bi mooy ki nga xamante ne mooy kilifa gu mag gi tëdd tey. Mm-hmm. kon askan bi dañu am seetlu te xam bu baax fu ñu teg seen tànk. Mhm. fii si kees nag police ak gendarmerie ñëw fii liggéey liggéey bu extraordinaire. Mhm. Mhm. waxuñu nit ñi ne dañ leen di sonal wala wala waxuñu nit ñi dañu leen di dóor mais dafa di loo xamante ne tey jii dafa tiital ñëpp. mais saa lu tiital président. tiital kilifa diine. Ah. tiital kilifa aada. tiital yu si presse bi yéen ñu ngi commencé ne tey jii yéen tout le temps yéen a ngi bàyyi seen lépp amatu leen sax njaboot yéen a ngi dugg ci askan bi toog di gis lu nga xamante ne andi askan bi jafe-jafe ngeen ñëw suba teel ñëw di ko wax pour askan bi am jàmm. kon donc ñuy dox guddi tamit nañu tiit ngir yàlla war a suur te toog. Mhm. dëgg dëgg. réew mi il faut ñu waxtaane ko si tee ak si dal ak si bëgg. waaw mhm. ah te laawante biir nag si biir kër yi nañu bëggante si biir kër yi. Mhm. joxante loxo saa kër yaa ngi waaw. ndax ñu bokk ak ndey ak baay bokk bokk ndey ak baay. Mm-hmm. ñu gisante wala ku nekk per sa sa mm-hmm. baax. Ah. dëgg la la yàlla yàlla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jara foofu la ci Thiès ñu ngi nuyu waa Thiès ñëpp 88 628 99 99 salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ku rajo bi wàññi ko waay. waaye booy wax ay waxu rajo waay. man de man de kuy def comédie musicale boo amee kii mun naa faj. Mm. boo amee corona. Mm. waaw. ok. <laughs> <laughs> maa ngi ñëw ci comme kii. kii lu mu doon wax rek ku université bi. Eh, étudiant bi. waaw kay parce man am na yoo xam ne daal man sama bi du ma du ma si gaaw d'accord quoi. Mm-hmm. parce que comme comme ma jigéen man a yow nu xamante ni Facebook wala nangam nangam ñu dem ba ci kanam ma la boo amee soxla jox ma ko quoi. Mm-hmm, mm-hmm. yombul. yomb na moom. waaw <laughs> ah, pour man ku ko def daal am na loo xam ne mu ngi ñëw ci kanam. am na loo bëgg. waaw waaye nag li ñu def nii baax na quoi. ñuy mm-hmm. euh, jàppale ñëpp waaw kay. pour pour pour ku ci bëggoon dugg wala ku ñu envoyé message comme nii. xam nga. mais man daal képp kuy def comédie musicale. Mm. su feebaree mun naa daa dem. non non dama ko wax. waaw léegi yow def comédie musicale yow yow ah, kii. man li ma man loolu laa wax di. d'accord. ayca yi man wala ma wax la eh, banaana bi nga dégg sànq ñuy day faj corona bi ban jàngat. banaana hmm. moo tax fan yii jaaykat banaana yi dañoo dañoo manqué banaana. Mhm, mhm. waaw man chaque jour damay jënd. saa njóogu moo jënd kay. <laughs> saa njóogu moo kay si jox ma jigéen da ko defal jëndi baraada kay. ma jigéen da yàq der rek. ah ma jigéen waaw ma jigéen yow soxla woo sëbu naturel kanaa. wuyul waa wuyul waay. gannaaw gannaaw borom soow yi muy lool. ankay bëgg naa kay. waaw léegi jaara place bi ma jox la sëfu bu gudd. fan la fan la. Eh, eh, eh, ah da ngeen publicité <laughs> ah. yéen xam nga yéen xam nga yéen dégg ni lan la dana ma fan ma ne ko ban taay la bëgg ça veut dire que waa léegi baal après nga jaar ci jommet rek numéro bi rek am jommet jommet moom kay bari na waaw tax ma lay son sànni maa ngi jégalu de maa ngi jégalu message ñu bu ñu paree message ba dégg nga <laughs> aywa jaajëf <laughs> merci beaucoup jaajëfal naa ko bu baax a baax 88 628 99 99 111 88 628 99 99 111 Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu bu baax borom sondage bi moom saa yu ñu paree day def benn sondage. allo hmm. ku baax. allo euh, asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Sa Ndiogou Mbengue. kilifa gi na nga def. waaw kii di Malick si lañ ko dëkk Medina Parkha. ñu ngi nuyu waa Medina Parkha yëpp. waaw dama bëgg wax ci affaire maanaam lu muy ah, maanaam dem jënd jur gi yóbbu jur gi yooyu quoi. Hmm, hmm. maanaam am na si ñaari côté yoo xamante kon dem naa ba am na fu baaxee nag ci ci ci ci mm-hmm. parce que bu njëkkoon dañuy sàcc sa xar. Mm-hmm. saa njëg bu lu mu amee. waaw dañ koy rend ba pare maanaam doo xam doo xam fu ñu ko yóbbu. Mm-hmm. léegi maanaam euh, sécurité luumir tax na xamante ni sàccam jug wàññeeku na fi léegi. côté boobu moom baax na si trop waaye beneen bi nag euh, saa. isaan da ngay gis koo ne saako ceeb dafa jeex moo bëgg a jaay moo bëgg a jaay ko jaay loolu tam kon nan maanaam baaxul daal ci réew. ba tax gouvernement bi daal na organiser àll bi mhm. ba nga xamante ne sàccum bi dina wàññeeku dëgg-dëgg ku nekk yem ci li nga moom mhm. boo amee sa soxla jël sa buy dem luumu fecc soxla waaye sa saa da ngay gis koo xam da yar xaram ba mu suur mhm. ñu ñëw jël lim nii rek jël jël yóbbu doo xam fu fu ñu ko jaarale yooyu yëpp maanaam ah, ñàkk si lu muy tere nii lu bëri bëri wàññeeku na dëgg la ba tax góor waaw ba tax gouvernement gouvernement na gën a organiser àll bi daal ba nga xamante ni ku moom sa xar boo ko yewee fekk ko fa soo bëgg a jaay nga jël nga nga dem jël yóbbu nga jël lu ma jaay. Mhm. waaye nag fu ñuy boo demee ci àll bi te am ñoo xamante ne tey. Mhm. comme bu demee ci euh, àll bi tey ñu ngi jaaxal jiw leen bëgg jaay seen xar seen bi amul fu ko jaayee. dëgg la loolu tam beneen problème la. Mhm. waaw loolu daal moo tax dugg tey maa ngi leen di caaru baax di leen gërëm di leen jaajëfal. a ayca mu koy wax sénégalais yi ni ma jigéen. ndekete uh-huh. <laughs> bana. waaw alaaji léegi banaana bi nag <laughs> léegi ma am sama wàll 88 628 99 99 111 ñii de ñu ngi xooli seen i banaana ci studio bi di lekk jërëjëf jël ko. allo ku baax. ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu ñu ngi sant alhamdulilah. waaw yàlla jërëjëf ñoom dañoo log duñ mën a wax ak yow waaw. ne mën nañu waaw. ndax man de gis naa ñoo xam ne dañuy mot. Mhm. te képp koo xam ne nii am nga soxla mot wala mu ngi mot da nga gis kanam bu baax. Mhm. lii di wàllu ndàmb ndàmb. Mhm. boo demee ci dëkk àll yi dañu demee ni balangaar. xam nga tey ba dama ba ngaa dem hôpital ñu tabax si tàng bi nga am fa six mois quatre mois may foofu boo fa demee. un mois nga doxee soxla. un mois yàgg de sax nga doxee si soxla. waaw ah xam nga ñoo xam ne jaan bu ñu la màttee tey. boo leen wooyee wax la sa tur fañ nekk la nekk dana bi wàcc jarul ngay dem naan naani garab ak dooma bi mm-hmm. fañ nekk la ñuy nekk def waaw léegi nag ñun am nañ malaat mm. na ñu ne mën nañ koy faj mm. wax dëgg yàlla mokkal nga tëril ñu dëgg mm-hmm. ah man daal su ma doon sóoru maame daa leen jox daal wax dëgg yàlla ndax lii da mel ne àdduna bi te mos naa dégg ne mën na koo faj léegi nag bu fekkee ay sénégalais ay malade nañ leen jox rek wax dëgg yàlla ndax ni ñu mën a dem liggéey te li te li ci ne sax mooy docteur yi wane nañ ci ne ci jàngoro ji daal sonal na leen ba yegg ci lool. taal bu tëw a tàkk nag nu neen lañ koy taale. wallaay wallaay. maanaam li fi ne nii. waaw maanaam état ñëpp a si jaaxle ñëpp am na leen nga jaaxle nañ. waaw mm-hmm. waaw léegi nag ku na man na koo faj daal man daal sama xalaat mooy. Mm-hmm. nañ ko joxe ñaar wala ñett ñu après ñu <laughs> waaw. Mm-hmm. ah dëgg yàlla. waaw kay léegi ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax suñu xel dem ci Ousseynou Gueye fële ca Mbacke. 88 628 99 99 ngeen toftal ci 111 maa jigéen ne ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax noo def. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen déglu chaque jour. ñu ngi delloo ziar. waaw mais bëgg nañ tuuti tamit mu gën a sérieux quoi. Hmm. waaw surtout yow maa jigéen ak sooy bu ñu leen di déglu bu baax mais. tamit loo tuddee lu sérieux sama xarit. ci saa njóobu ñëwul woon nag émission bi dina gën maanaam kaf ak kii bi émission bi dañu bëgg mu dem mais kaf yi ak kii bi kaf yi kaf yi ci la ci la la bokk xam na ni <laughs> ah, la mais maanaam dañu bëgg toujours tamit xam nga mu gën a nekk euh, kii quoi comme ni nga ko jàppe woon ci commencement bi ah, ñu ñëw rek di ñàngal <laughs> ah non dem na euh, ñu ngi ñu ngi koy jégalu bu baax ah là ñu ngi koy jégalu Euh, ñu ngi koy jéggul xam naa saa daa bëgg ñu ñëw ne garaawul ba tey ay xalaat la mm. ay la saa yi après bu ñu paree dinañ ci waxtaan Jibril ma jël ko ah waaw xaaral ma jël ko dese nañ deux minutes defe naa defe na tey édition spéciale ah, jël ko allo bul ñàng bul rey nag del ñàngal ma jigéen <laughs> nee na nañ ko def au sérieux non maa ngi leen di seer bu baax ñu ngi delloo bul ree bul ree de ñàng man nag samay reetaan moom ma. Mm. léegi maa ngi wax ci euh, xar bi borom jur yi. Mm-hmm. dafa am loo xam ne service minimum dafa am. Mm-hmm. suñ tëjul marché. Mm-hmm. tëjuñu daral ba. daral yi ci dëkk yi ñu ngi dox. léegi nag mu def ndax dafa dem ba avant ñu ngi tëj parce que marché yi ñu ngi te quinze heures yéen seize heures. mais ku ci nekk am nga droit. dem téye sa gàtt dem jaaye ko. parce que am na ñoo xam ne amuñu dugub amuñu gerte amuñu ceeb. seen gàtt lañ mën a jaay pour mhm. dem jëndee ji ko rënd mhm. yóbbu ko seen kër te loolu bokk ci benn loi boo xam ne président teg nañ ko man loolu dama koy suivre mhm. bu fekkee am na benn gox boo ba sonal ñu nañ ñu ko wax ñu dem ba foofu bind dem wax ak commandant gendarmerie ak zone ba fa nekk ñoom autorité nekk parce que loolu tegul fenn léegi nag xiif dafa bëri ci dëkk bu kaw yi nga baal ma daaneel foofu xiif ah. yaa ngi commencé sonn ku ci nekk Mm. dañ lay jox sa liberté ba fi mu yem. Mm. mais jaayum doole ak ay laaj 3000 yooyu mën na ñàkk. Ah. ok jërëjëf. merci ñu ngi koy gërëm baax tukulóor Alaaji sax waaw ñuy jox nit ñi di. mais di leen bàyyi reetaani nag Alaaji waa ji wax na dëgg. ah mais. di leen ñàngal. Euh, dégg nga de. ok waaj waaj waxuma sax de yow kii la wax yaa ma ci la bokk nag. <laughs> ay te ma kon numéro Jommet baa ngi noonu euh, sa sa banaana comme man wax dëgg yàlla lekk ngeen ko te mayu leen ma Alaaji Katim Cissé ñu a baax ne Alaaji may envoyé numéro boo xam ne dinaa ko mën a joxe fii ci rajo bi pour gars yi bëgg a bokk ci seen groupe WhatsApp yooyu ndax man dañ may sonal rek damaa bëgg a bokk damaa bëgg a bokk ay ci kon Jommet mi ngi noonu 77 128 33 29 pour nga jot euh, équipe bu yàlla la lu ci dëng ñun ñii la dig ba suba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa dama jógaani leneen lu bokkul woon li maa mi bàyyi woon fii li ma dama fàtte li man du ñoom toppandoo ma yóbbe woon ma bàyyi sama yoon fa laa jiitaloon àdduna ma xabtaloon ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas ci kàmb ma bàyyi yóbbe woon léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii ku may gindi waat ma mën na ñibbi waat àdduna ma nax naf si yow ma buum ci baat naagu fàtte yàlla bu ma may dinaa moytu àndandoo yu bon yi may jay dinaa gën a fonk sama ay mbokk toppa ndaw ma dugalam ci roy beneen xeetu laaj weddi li ma doon reer topp sama bakkan waay waay waay waay léegi dem naa ba amatuma man maay kan ma nag ma dëpp xaw ma fi ma nekk mooy fan and culture, number long chop ana mu reer na ku gindi teg ko yoon wi balaa guddi diggu dooleem la tollu foog ne lu sampee mën na ko buddi sol na dàllu capital ba riir maa ko xattal ba